Nous avons fait rek nuyu conseil constitutionnel ñëw fait la coalition CAP 2024 convergence pour les alternative progressiste nous avons fait suñu candidat du le président Aliou Sarr Nous avons fait la délégation bu la coalition de ko conseil constitutionnel pour nous déposer li nga xam le euh, candidature dossier candidature président Aliou Sarr comme nous le savons, nous ñu fait laaj li gën ndaw ñeent ak ñaar téeméer ak fanweer benn li gën a kawe juróom fukki junne ak juróom-ñett ak juróom-ñeent téeméer ak juróom-ñeent ak juróom-ñaar fukk ak juróom ñun gën a kawe neen déposé tey juróom fukki junne ak juróom-ñett ak juróom-ñeent téeméer ak ak juróom-ñaar fukk ak juróom déposé nañ ko fii ci conseil constitutionnel ñu ngi doon laaj aussi que euh, parti bu nekk wala coalition bu nekk war nga am juróom-ñaari région yoo xam ne da nga fa am lu mu néew néew ñaari junne ñun am nañ fukk région ak ñaar yoo xam ne am nañ fa lu ëpp ñetti ñetti junni loolu ñu ngi koy jaajëfalee bu baax a baax a baax Sénégal yi nga xam ne ñoo am confiance ci président Aliou Sarr ñoo yaakaar ki nga xam ne ëllëg bu yoree réew mi Sénégal dana jëm sa kanam mooy le président Aliou Sarr ñu ngi jaajëfal ñëpp di gërëm ñëpp di sant ñëpp vraiment suñu dossier yëpp amul dara lu taxaw lépp mat na incha allah di ñaan rek tirage bi ce sera le 28 incha allah yàlla may ñu ndam sa tirage ba euh, coalition CAP 2024 jël ndam li jël premier yàlla jàll lañu parrainage ba yalla jox ñu réew mi inshallah en 2024 li waral candidature bi dafa am solo ñu euh léral ko li ñu soxla moy sénégalais yi nekk fi ndax wolof dafay wax bala nga nan nam nekk fa li ñu soxla moy dello si d'abord wérgu yaram ci réew mi xam nañ ni sénégalais yi wératuñ ndax limuy coûter dafa cher te 230 milliards yi muy coûter sénégalais yi bëgg nañ ko jël en charge ba wér yaram dootul coûter dara sénégalais yi bëgg nañu aussi le panier de la ménagère dellu si ci réew mi ndax coppet karo coppet nawe coppet légume coppet lu ne coppet jën vraiment dundatuñu te bu ñu dellu see loolu le panier de la ménagère mooy dinañ delloo si liggéeyu jeunes yi l'horticulteur dina liggéey euh, mbaykatu ceeb dina liguey. baykatu gerte dina liggéey baykatu kaani dina liggéey euh, nappkat bi dina liggéey bu ko defee réew mi dellu ca naataange gañ ko xamee woon loolu ñun mooy d'abord suñu credo du ñu dindi nag li fi nekkoon couverture maladie universelle bi ñuy wax dinañ moom la ñuy jël soppalikoo une santé gratuite bourse familiale li ñuy wax dinañ ko gën a yokk soppalikoo gën ko dooleel ndax réew mi dafa toll fu ñuy dumbalee njaboot ji donc lépp lu fi jub te baax fi bu soobee yàlla dinañ ko bàyyi mais wér yaram moom jàpp buñu ne bu réew mi bu sobé yalla sénégalais dañ ko am ba doy donc la santé gratuite ce sera notre credo lolu mo waral candidature bi délo ci Sénégal ca naataange ak koom-koom nga